Ah. gannaaw nag ay invité de la ñu am. macha allah dañ koy njëkkee rek suñu jigéen suñu sister suñu yaay. muy Mbayang Loum la voix d'or li may wax rek moom moom ah, yàlla na ko yàlla lafal cat. Mbayang Loum tey Mbayang ak wëy. par rapport ak tey bi nga siy dugg. Ah, bu ndaw rek looy ubbee rek ah, looy ubbee ah. émission bi neex parce que gars yi ñu ngi commentaire gars yi ngi yàkkamti gars yi ngi koy dóoral ay kër. yom jekkate mbeska yo fay ndono mbapto jibe jaay wate. ndeysaan. yom jekkate jaay wate. yanjom malambe nakonde bobaha janjom nande mayalaye yanjom malambe nakonde bobaha janjom nande mayalaye jofnoki jilor jomna maga fagit kaye ciyangen jangi jëf noo xejil or njom naa maaga fagit kaay ci yaa ngi jànge allah macha allah yàlla yàlla wëral gën a wëral baat bu wëyee ñëpp kontaan tukulóor yi alpulaar yi ñëpp kontaan vraiment mbaye nga ak wëy don la certes jàng nga ko tarbiye nga ko nga ànd nga suñu yaay Xadi Juuf yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana waaye est-ce yomboon na tey ñëw rek bëgg a wu rek est-ce que yomboon na non bu dara yombut mm-hmm. yaa xadi maa ngi koy ñaanal do passage yal na ko yàlla yërëm te xaare ko ajjana mm-hmm. te liñ doon ñaan mu fekkee lépp mais yàlla mooy dogalee noonu mm-hmm. mais dara yombul ci àddina di tibb di sax sax yombut yombul dëgg la rawatina nag nekk jigéen mm-hmm. nekk ci àll bi boo fanaanee fi tey bu subaa nga dem fanaane fee di gis ne di dégg ne aussi neexut jegewul neex. mais nag loo muñul rek. Mm-hmm. du la fa fekk. doo gis njëriñ il nga nangoo muñ il faut nga nangoo doon. Mm-hmm. kuy jàllale ay baatu ginnaaw. parce que suñu liggéey bii lu lu nekk moo ngi ci. lu ne moo ngi ci nag loo xalaat ak loo foog moo ngi ci. mais nag il faut nga doon jàmbaar dëgg doon jigéenu battante. ndeysaan. doon koo xam ne aussi sa xol dina yaatu. Mm-hmm. te dina rafet. te dina rafet. mu mel ni tey wéy bi ni nga ko waxee rek tey loo jàng la loo tarbiwu la. par rapport ak léegi euh, bi ngay ànd ak Khady Diouf est-ce que gëmoon nga ne affaire yi dina yegg si fii nii. waaw dama ko jàng nag may jàng ak gëm-gëm la ñuy boole ci àddina. Mm-hmm. pour doon pour nga doon kuy réussir. Mm-hmm. il faut nga nangoo jàng. Mm-hmm. il faut nga nangoo déglu ay conseils. te yàlla def na aussi ki ñu jiite woon. cër rek lañ ko joxoon. Mm-hmm. parce que loolu lañ ko war a jox parce que nit ki ki lay jàngal métier. cër nga koy jox ba ba ngay am li nga bëgg. dëgg la noonu lañ ko doon dundee aussi. Mm-hmm, noonu ngeen ko doon dundee aussi ah. mu mel ni manqué na la. ah la. waaw bu baax manqué naa parce que am na mhm. foo fooy toll ci woyu làmb ji rek. Mhm. man saa su ne suma xel day dem ci moom. ci moom. Mhm. muy surtout booy woy ay woyam. waaw woy yi nga xamante ne moo ko créé moo ko fent. wallaay waaye création yi Mbayang di créé. Ah. Mbayang certes day improvisé tey mën nga ko wax turu Dembélé rek mu woy ah. woy bu neex. Ah. mais am na woy yoo xamante ni tey ay woy lay nekk. ay woy yu yeete lay nekk ay woy yu jàngale lay nekk woy yooyu noonu nu muy demee. waa ni muy demee comme li nekk ci àdduna rek. parce que àdduna moom. Euh, dara euh, nit ñi naka dara changé wul ci àdduna. parce que mm-hmm. li fi nekkoon moo fi nekk rek li yàlla wàccee moo fi nekk ba tey. Mm-hmm. mais jikko yee changé. Mm-hmm. jikko war yi bari nañ. dëlkat euh, yi bari nañ. parce que da ngay toog ak nit ki sax muy nekk ak yow guddeeg bëccëg. fekk da lay li muy nekk dund li muy wax. du original ci moom. ay fool la. te loolu yëpp presque yow boo ci dundee rek. parce que ñun yàgguñ fi yàgg nañ fi mais. dund nañ lu bari. àdduna nag boo ci nekkee di dund rek saa su ne mun nga jàngale. Mm-hmm. ci loolu lañ nekk rek. ndeysaan lii xew léegi rek la ñuy woy. Mm-hmm. Ah. da nga nekk ci làmb ñu jàpp mm-hmm. mbër ku mel ni Serigne Ndiaye tey. Ah, jàpp benn mbër jàpp ko jàpp ko ba mu leer na kii tey nekkatul. mu am woy boo woy loolu da ngeen di xam ne mbër bi dañ ko jàpp wala da ngeen xam ne euh, gars yi ñu ngi si ñu ngi buum yaa ngi daw wala ñu ngi wootante loolu nu muy demee ba ba ngeen woy yéen woy yi. waaw mbor bu ñu jàpp nag peut-être yomb na xàmmee sax parfois. xëy na nag. nekkul ñoo xam ne am nañu ay bopp. waaw mais nag nit ki boo ko gisee muy nekk. Mhm. benn nekkatul da nga xam ne kii. Mhm. yaa quelque chose. Mhm. waaw. woy nag woy genre woy yooyu am na woy yoo xam ne yaa ma aidé moo ko doon woy. moo ko doon woy. bu dul moom itamit ñun si moom lañ ko déggee. Mhm. muy mbada yi la maafa parce que mhm. dañuy dégg sax ñuy naan. Mhm. wooy boobu boo même yow boo amee sa mbor boo xam ne leer na ne far nga ak moom sax. buñ ko takkee ba nga xam ko boo ko yëkkatee rek. mun na ko dindi. mun na ko dindi waaw bi mun na mun na mun na na mun na tëttal takk bi. waaw te man damaa jàpp ne sax wooy yëpp mun nañ tekki mbër. Hmm. bu dee mbër boo xam ne léew li ñuy wax daa nekk sa sidit nga xam li ñuy wax dëggantaan muy hmm. dugg si sidit hmm. woy ni mu neexee ak tëgg ni mu neexee hmm. boo koy dégg am na goo ma ne am na lu mun a nekk ci yow de. Mhm. Euh, muy affaire takk ak du kenn xamut. am na booy booy woy booy naan ne bambanaa njalaay. korkati diidaam korkati diidaam. waaw boobu aussi dañ fekk rek mu bokk si. ñi nga njalaay. yaa xadim moo ko doon woy ñu ko doon dégg si moom bambanaan njàlla mooy maanaam bu ñuy bu ñuy bu ñuy sëriñtu di ree maanaam gars yi dañuy ne si làmb ji korkati diida maanaam mooy koy comme korkati tiit naa mhm. mu ne yamanguma mhm. ndax takk nañ kor maam kor maama Sarr ñu ne mhm. bambanaa njala comme ñuy sëriñtu di koy ree di ko waaw euh, Ziza yéen ñëpp yéen a ngi si ah moom bu nga bëggee posé question ndax xam naa ne occasion bu mel nii aussi yombul tey. man xaw ma woon ni si euh, yaay Xadi la nekkoon. Mm-hmm. parce que man bu may démarré ñoom laa fekkoon. Mm-hmm. moom ak Maye Ndep Adrien mm-hmm. Senghor. couvrir naa fa bataille day at at at. mais yow ak euh, yaayu Adji Pullo yéen a bokkoon si mm. groupe bi. Mm. Pullo waa ñoo nekkoon si Yaay Xadi. si Yaay Xadi. Mm. waaw foofu laa leen fekk ñoom. parce que ñoom presque ñi ma fa jiitu sax bëri nañ. ndeysaan xees ñi mujjee ñëw. si mm-hmm. moom mm-hmm. si laa dem ci moom. Mm-hmm. looy wax ci ci ci ci Pullo lan nga doon lan nga lan a témoigner si Pullo. Pullo <laughs> nit ku baax. nit ku baax. ku xolam yaatu woon nag. pulo kese laa doon gis woykat boo xam ne boo àndeek moom li mu am ci làmb da koy joor teg lu luñ ko fay ak liñ ko may léegi yëpp mu ne xaalis baa ngi noonu lu mu am aussi lu mu amul ci àddina rek lu yaayam lu yaayam amul ci moom mm. loolu moom dinaa ko fekki alaxira lu mu def damay ñaan yàlla mu yéex mais lu mu amul woon ci àddina mm-hmm. du mbër du mm-hmm. woykat ñun ñu doon woy sax daf ñu doon jëriñ mm-hmm. man mi sama dëkk ba doon tëgg làmb dafay woo sama yaay mu ne ko bu ma wooyee ne ma jox ma maire bi. Mhm. yaa teewa bul togg cere bàyyil ba ñu ñëw. ñoom ñoo doon ñëw mercredi moo dem Sella Marie Dione waa ñoo mhm. ñoo doon togg cere. Mhm. bu laamu ji commencé woon ñu ne del mu ne del jënd meew rek. bul jënd leneen nit ku baax aussi. ku baax ku xolam yaatu nag. mais jamono nag moo neexul instant bii. loo wax rek. di am na saa ñoo xam ne dañuy saaga si internet bi mais mais calculé wu. Mhm. nit ki li nga xam ci moom bu wax jotee rek wax ko. wax ko yaay aji saar ku baaxoon ci àdduna. Mhm. ku baaxoon ku yaatu woon xol. Mhm. lépp am na mbër yu bëri yoo xam ne wax rek moo baaxul. mais jëriñ na ay mbër yu bëri du ay blouson yu mu doon jënd di ko jox ay mbër ak ay àndandoom mhm. du xaalis paas yu mu doon doon may mhm. mais xam nga àdduna léegi peut être ñi yaa wax mhm. mais ñiy wax jëf léegi bariwul surtout boo dee dañ yomb fàtte Adji Sarr daan ñëw ci moom nga mu fekk lan fa Adji Sarr nag moom da ko maye woon dëkk bu ñuy wax maya foofu la Adji Sarr yaroo di jàngee nda man dama doon woy jirnda di ko fay fekk moom aji moom aji waaw problème moom noo ko dundee problème am ni ma ko dundee xëy na nit ku nekk rek. Mhm. ak sa vie privée. waaw parce que euh, man li may dund tey mu nekk suma vie privée. Mhm. tey bu ma ko génnee woon daay siiw rek. bu ma ko génne wuute tamit kenn du xam. loolu la rek. mun na am mu nekk vie privée mun na am mu nekk loo xam ne daal seytaane rax na ci. Ah. mais lépp lu mu doon daal yal na ko yàlla. jégal daal maa ngi dégg ñi muy wooye nag ñi naan ëmbaajoo xaw ma mhm. mais bu aji aji saat bu wooyee nag war naa wooy non day wax ne nu mbaagee loolu mm. nu mbaagee mooy ndax munoo leen mm. comme ñi koy awul xëy nag ñoo la doon laajte ndax munoo leen quoi waaw mm. moom bu wooyee nag war naa mën a woy ndaxte si waaw bu wooyee moom war naa mën a woy parce que si woy la juddu waaw si woy la juddu mm-hmm. parce moom man boo wooyaguma yaayam dafa doon ñëw parce que ñun suñ kër gu mag ñoom yaakaar ne bu ñu ñëwoon foofu la ñuy dal ah. su ma deuxième micro léegi boot na Adji Sarr ba tey boot na rakku Adji Sarr di Cheikh ba tey ak ki ñuy woowee tikis am na ñaari rakk yu góor bi yaayam bi mu leen di booteem dafa doon ñëw kër Farba di fay woy di leen di indaale Kumba Jaga di leen di boot. Mhm. ngeen nekkoon si kër gu mag lañ nekkoon si keppaaru Xadi yaay Xadi Xadi Diouf. Mhm. mun naa wax ni moom ak yaay maye ndeb ñoo fi newoon. dëgg la ah, mm. bu ñu jëlee kii weekend bi ñu jël kële. par la force il faut mu am concurrence. Mm-hmm. Mm-hmm. nga xamante ni sa seen lay doon. Mm-hmm. xam nga yéen bu ñu leen jëlulee ñu jël maye ndeb daan na leen métti. non non non loolu du cas parce ku nekk ak liggéeyam parce que yaa xam ne toog semaine woyuwut. waaw mooy mosut a toog semaine woyuwut parce que lamb yi du Dakar kese. àll bi moom.